alors Yérim tey bu lépp jaaroon yoon tey sénégalais yi waroon nañu dem élection tey moo nekkoon 25 février euh, la date retenue pour l'élection présidentielle alors nan nga dundee bisu tey bi euh, avec amertume avec regret ou sans regret waaw euh, li xew Sénégal nag moom euh, lu yàq deru Sénégal la lu ñaaw la ndax euh, Sénégal du RDC Sénégal du la Leone Sénégal du Guinée donc euh, le fait que ñu déplacer élection Sénégal yi tey ñu waroon voté kenn voté wul ba pare réew ma nekk ci coono ak euh, xuloo ak xeex lu yàq deru Sénégal la lu yàq deru Macky Sall la ci àdduna bi lu ña lu waroon a ñàkk la parce que lii waruloon am Sénégal waaw man nag ku ci am mbetteel la ndax euh, la ma bàyyi woon Sénégal ak li ma fekk fii du benn parce que man ba bi may jógee Sénégal li ma jàppoon rek mooy li ma makk sàll waxoon waaw maanaam report amul élection yi dañ koy def ci date bi nga xam moom lañ ko war a defee information yi ma bu jot jot man bi may jógee Sénégal mooy dañuy def élection yi le 2 Macky Sall euh, jël avion dem Marrakech noppalu ji bu fa jógee dem États-Unis bu fa jógee dem France ubbi fondation man voilà moo tax li xew lu ma lu ma bett la lu ma bett la lu ma bett la lu ma yaakaarul woon la euh, te bi ma agsee ba fii laa ko yëg xam nga yow maa ngi la woo euh, le premier février lañ waxtaan ci guddi gi wala le deux février ah li ñuy waxtaan doon ci laay voilà waaw boobu laay soog a jot information ma woo la ne la man li ma dégg mooy Macky Sall dafa nar a dàq élection yi waaw donc euh, ba bi may jógee Sénégal man yëguma ko woon waaw loolu mooy affaire bi